signé wul photo wuñ ko te nañ ko carte d'identité bi carte d'identité basax yi nag la joxe ñu indil ko bii kii sama yaay bopp la sama yaay moo nekk nii gis ngeen ko dañ ko defal carte te élection législative yi maa ko yóbbu ci oto mu voté ñëwaat gis ngeen ñu defaraat ko beneen bureau defal ko bureau 1 ci maxa gis ngeen ko nii kii ku ñuy wax Ba Matar Dieng la yëgul na sax na am na carte d'identité ko sax yëgu ko gis nga ñu defal ko nii ñoom ñëpp la leen defal gis nga benn maire la bu nekk ci koñ bi ñu ñu def ko Binta Gueye ñun xawma koy lañ ko defal te ñi ñëpp maanaam quarante yi leen gis nga ko nii te maanaam ñi ñëpp quarante yi leen defal maanaam euh, bi ñu leen koy defal bi ñu leen defal quarante yi maanaam signé wuñ photo wuñ leen demuñ fa dañoo xëy xëy rek ñu indil leen ko te ñu leen ko indil fekk na ñoom ñu amoon ay quarante fii ci Touba ba noppi fekk nañ ñoom élection législative woote woon nañ gis nga ko juróomi quarante la bi ngeen ko gisee nii juróomi quarante la gis ngeen ko nii ñu boole ko ak juróomi yére juróomi juróomi yére APR gis ngeen benn ngi nii benn ngi ñaar gis nga ñett gis nga ñeent juróomeel baa ngi nii APR ñoo def lii ñu waa APR rek ñoo ko man liggéeyal la carte d'identité te demoo dikkoo ñu signalé la photo la indil la ko sa biir kër ko ko mbubb lii APR rek ñoo ko man kenn mënu ko ku dul waa APR mënuñ ko